sama gars yi ñu ci bëri ñoom Sonko la ñu àndal. bi ñu seetaanee vidéo yi ñu bëri dañ maa woon naan ma bàyyi Sonko mais Sonko neexut a bàyyi kenn waru koo bàyyi. lan lay wut kër caga yi. Eh, massage salon de massage yëpp kër caga yi la. fii Sénégal ay musuma faa dem mais da ngay gis ñu bindal am na sama xarit yoo xam ne dañ fay dem nee nañ massage plus moo am caam moo ma ko wax naan ma body body mooy da summeeku def dungu Ken dë ki, amna bo xam plus bi mom moy bi nga xamni da ngay sëy mais Sonko du man man du mom Sonko dañ ko yaakaar mu nek avenir senegal gep gem ko c'est comprendre nga senko mi nga xamni mo nekkon impo et domaine ak senko mi nga xamni mom mo nek fi warul bok c'est comprendre nga mom dafa wara am ba pare mom kou yi dafa terre à terre lal na aji sar ak lalul aji sar lolou woruma ba xam Sonko ñam wala ñamul aji sar ak Sonko lu indirect mais warul woon a egg foofu ñu naan ñam na ak ñamul ndax problème mu viol loolu da lay topp day yàq sa réputation. ba keroog soo góor dafa dem. waaw man buy violé nu ma ko xamee. daal la danga ma dugal dafa feebar. waaw dem di faju ji mu sentir ni. Adji Sarr moo mën a mooy maase katam. loo ci xalaat ah te Adji Sarr a ko mën a maase. waaw Adji Sarr ni maase na ko. ah nañ bàyyi yoon def liggéeyam mais foofu daal du place am. Euh. niveau bi terre à na trop niveau boobu baax na Sonko loolu ku la ci dégg da lay xeeb. yéen ñi nekk ci nguur gi tamit bu fekkee ni complice ci ngeen def Sonko defoo leen du dëgg defoo leen yoon di sa comprendre nga ni dangay nekk guerrier sa adversaire nga xeex ak moom sans autant que nga koy ngay wut foo jafandu yéen bu fekkee yéen a nekk ci dëgg dëggal leen seen bopp jëlee fi Sonko bu fekkee ni yéen la askan bi bëgg bu fekkee ni yéen la askan bi gëm bu leen ko tuuma gor la tuuma mën naa rey gor bu fekkee ni Sonko tamit yow yaa ñam waxal man maa ñam mais tamit moom mooy loolu. yaa ma xam. <laughs>